sant sant doyul borom jamono ndax sa mbir ci ñun taxawul borom jamono lépp lépp yaa ko doxal waaw waaw ni borom jannatu jërëjëf ay borom ni lu ñu la sant sant doyul borom jamono lu ñu la sant santu doyul borom jamono lu ñu la sant santu doyul borom jamono ndax sa mbir ci ñun taxawul borom jamono lépp lépp yaa ko doxal waawaa ni borom jannatu jërëjëf ay borom ni nañu ko santu mooy li nu war sëriñ Saaliw nañu ko mooy li nu war nan ko sant borom jamono nañu ko sant mooy li nu war nan ko sant mooy li nu war waaw waaw nañu ko sant mooy li nu war nan ko sant borom jamono mbir yi yépp moo ko defar ay waay sunu bakkaar yi mooy ki ko far waaw ani borom jannatu jërëjëf ay borom ani nañu ko sant mooy li nu war borom jamono nañu ko santu nu war nañu ko santu borom jamono nañu ko santu nu war nañu ko ko santu mooy li nu war ko santu mooy li nu borom bakkaar yi mooy ki ko far waaw waaw ni borom jannatu jërëjëf ay borom jannatu jërëjëf ani nañu ko santu mooy li nu war nañu ko santu mooy li nu war ani nañu ko santu mooy li nu war borom jamono mbiri yépp moo ko defar borom jamono sunu bakkaar yi mooy ki ko far waaw waaw ni borom jannatu jërëjëf ay borom bakar yi mooy ki ko far waaw waaw ani borom jannatu jërëjëf ani ko fi sant sant na ko ko fi sant sant na ko ko fi ko koy tëkkale gaañe ali boromu jannatu jërëjëf ay boromu jannatu jërëjëf ali ko bi sant sant koy tëkkale gaañe ani borom jannatu jërëjëf ay borom jannatu jërëjëf ani lu ñu la sant sant doyul lu ñu la sant sant saaliw lu ñu la sant sant ani ndax sa mbir ci ñun taxawul yaa ko doxal waaw ani borom jannatu jërëjëf ay borom jannatu jërëjëf ani nañu ko sanatu mooy li nu ani mbiri yépp moo ko defar sunu bakkaar yi na ko yëkkale gaari ani borom jannatu jërëjëf ay borom ani ko fi ñaani ñaan si na ko ko fi ñaani ku mu mën a doon ko fi ñaani ñaan si na ko ko fi ñaani ku mu mën a doon ko fi ñaani ñaan si na ko ko fi ñaani ku mu mën a doon ko fi ñaani ñaan si na ko ko fi ñaani Sëriñ Saliou Mbacké may ko ay ndiram defar te mooy dimbali gaañe ni borom jannatu ay borom jannatu jërëjëf ni nonga tarbiya wi ma ay ngërëmam dox balaate ay ngërëmam mbooti magi ñañoo ne ci ñoom waaw waaw ni borom la wonu ca magi ña la jël nu teral mooy defar te mooy dimbali gaañe ani borom jant bërësa ay borom man de maa ko wax saaliw man de maa ko wax Ablaye ma soriwul daara jannatul li digal waaw ani borom jannatu jërëjëf ay asa génn kër ga moom nga ko jox génn kër ga asa génn kër ga moom nga ko jox génn kër ga asa génn kër ga moom nga ko jox génn kër ga bam ko joxee de lii la la wax toog maa ngi ñaan nang ko bari waaw waaw ani borom jannatu jërëjëf ay saaliw sa ñaan gi tey nangu na mbàkke yow sa ñaan mbàkke yow sa ñaan nangu na mbàkke yow sa ñaan nangu na jur këram ya tey bari na jur këram loola lim ko sax jafe na waaw ani borom jannatu jërëjëf ay ay waay yaatu lool gason ay borom ma bisin ya ca biir kër ga fexe te kenn du fa mer Babacar Diouf di gor waaw waaw ni borom jannatu jërëjëf ndoxu na wal bisin ya ca biir kër ga fexe te kenn du fa mer borom jannatu wëtir ba ani yaa toppal watiir badiɗaw wawaw ya toppon watir badiɗaw wawaw ya toppon watir badiɗaw wawaw ya toppon watir badiɗaw andi tay watir ba yenga ca kaw wawaw tay ya gis la di di daw di daw di daw di daw ani yaa toppanu watir wa yenga ca ay waay Amérique ya di daw di daw di daw di daw borom jannatu yi santan war ban amee sëriñ ko jar sëriñ Saaliw yi ki ko jar mooy borom cant gi bismillaahi santanu war banu amee sëriñ bi ko jar ki ko jar Mbàkke mooy borom cant gi bismillaahi banu amee sëriñ bi ko jar ki ko jar Mbàkke mooy borom cant maase leen ñu sant ka way sant ki borom cant gi ba nu amee sëriñ bi ko jar saali mooy ki ko jar Mbàkke mooy borom cant gi fu diine bër dikk na lam bi diine sàccati na fu diine bër dikk na néew da ngeen di abonné fii ci Tawfekh Production a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam li nga xam ne